loolu ñu ah parce que ci démocratie la ñu nekk te ci démocratie moom manifestation lu normal la bettuñu parce que li ñu ci rafetlu mooy population bi génn nañ police encadré na leen marche bi jaar na ci yoon ñëpp dellu nañ seen kër li ci des nag mooy man li ma wax mooy bu fekkee ne président de la République jàpp naa ne déglu na ñi nga xam ne ñoo doon marche bu fekkee ne jàpp na ne man na fomm mesure bi wala mu décalé ko ah loolu lu baax la parce que président de la République kenn mënul ñàkk nangu ne jotee ci nguur gi ak léegi def na ay góorgóorlu yu baax pour que sénégalais ci dëkk yi gën a sori ñu man a am courant ah léegi nag buñ demee ba courant bi ñu war ko yokk est-ce que Sénélec bu ñu bàññee yokk bi Sénélec dana ko attan loolu nag gouvernement bi moom moo koy apprécier ak président de la République deltu ginnaaw moom loolu moom ah man nekkuma ci euh, xelu gouvernement bi mais li ma jàpp mooy bu fekkee ne mën naa nekk ah lépp loo xam ne day woyof ci Sénégalais yi loolu président Macky Sall du ko bàyyi